Sénégal 4 TV yow yaa ko ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee activé cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage rahmatullah mbokki internet du Sénégal 4 TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di jox kenn ku ci nekk ci yeen sa wàccuwaay amaat mbégte ak contentement rek dikkat ak yéen ci seen chronique du jours comme ni ñu koy defee ay bi si nekk rek ci site bi nga xam ne moom ngeen tànnal seen bopp di Sénégal 4 TV mbooleem loo xamante ne ni rek actualité la nekk euh, ci àdduna daañu ci waxtaan ak sunuy am di jàmm waxtaan ci ak sunuy soppee ci ni ñu koy defee moo di joxe suñu xalaat ci ni nga xamante ni noonu lañu jàngate mbir yi ubbi leen buntu permettre kenn ku ci nekk ci yéen itam moom itam mu daal di mën a joxe xalaatam ndax loolu mooy particularité bu Sénégal 4 TV kenn ku ci ne am na sañ-sañu joxe xalaatam comme ni ñu koy waxee ci commencement vidéo bi yow mi nga xam ni sa xalaat dafa uute ak sunu bos mbaa nga d'accord ak ñun ci xalaat bi bu la neexee mën nga def ni ñun jël numéro Sénégal 4 TV di 77 507 27 29 daal di def sa vidéo bu la neexee wala Ida nga daal ñu yónnee ojo comme ni ñu ko défé euh, insha allah rabbi dañu ko traité bu fekkee ni kaddu yi jàllulu na manes na jall dañu ko jallalé insha allah rabbi euh, té du am ben ngañ té itam du am ben charte bu ñu la ci tegal insha allah alors tay nak ñu bëgg wax rek suñu xalaat ci ni ñu jàngété mbiri pap buba euh, di policier bi nga xamanteni ni mom lañu dan wax ni dañu ko rajé manam dañu ko dakk ci ëttu police ba nga xamni ci la nekkon don ci liggéey boobee ba léegi nag eh, coow li bari kenn ku ci nekk di ci joxe sa xalaat kenn ku ci nekk itam di wax ni nga jàngate mbir mi alakuli àllin ñu nangul ci kenn ku ci nekk xalaatam mu nekk nag loo xamante ne ni mbiru pas-pas la mbiru gëm-gëm eh, te boo ci waxee mën na am nga am koo laal mën na am itam nga wax lu vex sa nit waaye waa alakuli àllin ndeem ñun ñoo tànnoon ni dañuy daal di embrasser bi la métier ak lu mënti xew daanu ci jaf sunu jàngat ak lu mënti xew itam daañu wax ci ni ñu ko xalaat di jaajëfal bu baax a baax mbooleem ñi nga xamante ne ni rek jot nañu ko dooleel jot nañu ko jàppale ci wàllu saayir ak itam ci wàllu baatin ñu ngi leen di gërëm di leen ci sant bu baax a baax a baax ndax itam eh, lu mën a jariñ lu ko mën a jariñ la moom Pape Bouba waaye itam lu ko mën a lu mën a jariñ ay mbokkam la waaye ni nga xamante ne ni rek tey moo tax ma bëgg ci joxe man sama xalaat euh, damay bañ ci ñi nga xam ni ñoo koy layal ak ñi nga xamante ni ñoo ci addu waxe ci noo xamante ne ni dafay mel ni lu normal la waaw dafay mel ni euh, maanaam dañu bëgg a daganal loo xamante ne ni dañu ko aaye ndax léeg-léeg nga dégg yenn interprétation yi dafay mel ni sukk bi fab buuba sukk ci kanamu Cheikh Modou Kara loolu mooy dëgg mooy yoon daq gi ñu ko daq ci ëttu polis bi loolu moo dul yoon man ma bëgg a indi ay leeral wax ni gis nga mbubb bu dee dañ la ko solal na la mbubb mu beew ko boo ko solee fii nga war a yem lii nga war a def nii nga ko war a defe yow nga d'accord ci jamono ba ñu la koy solal ni nangu naa ni bis bu ngeen ma ko solalee lii ngeen wax ni loolu lay def loolu laa koy defe bis boo solee mbubb ma def ko neneen nu bokkut ak nañ la waxoon nga defe ko ala kulli xàllin bu nuy wax dëgg te yàlla rekk tax nanu ko dimbali moom Pape Bouba ndax yonent bi waxoon na ni bu seen mbokkum julli tooñee nangeen ngeen ko dimbali bu ñu ko tooñee na ngeen ko dimbali ñu ni ko buñ ko tooñee da xames nag dimbali ko waaye bu dee ni daa tooñ nun koy dimbali mu ni ngeen wax ko dëgg man damay d'accord ak ki nga xam ne dafay analyser wax ni je suis tout à fait d'accord ñu dimbali ko mbokkim sunu sa sama mu murit yëpp sama mbokki yëpp jóg àndandoo dajale lu nu am jox ko dimbali ko ndax foofu la toll ndax ku nu dàq ci liggéeyam xëy na la mu doon jot weer wu dee wu nekk daan ci dimbali ko daan ci dimbali ak njabootam amatu ko jaadu na ngir ñu dimbali ko waaye faw ñu ñu leeral ni moom moo tooñ moom Pape il faut que nit ñi ak accepter dëgg googu bëgg sëriñ Touba xër ci sëriñ Touba waruta a tee nag nit ki di wax dëgg ndax moom sëñ bi danoo yar ci wax dëgg moom sëñ bi danoo yar ci xaqi bil xaqi nañuy dund ci dëgg donte ni dañoo teg paak ci suñu put ndax ni ñu koy interpréter mën na inspirer génération bii ñëwaat wala ay moromam yi nga xam ni ñu ngi ci biir ëttu police bi ëllëg ñu dem defiji li mu def moom jàpp ni loolu mooy lu normal et que c'est ndax tenue bi nga xamante ni def ko sol ba muy prêter serment ba muy nangu ngir sol tenue bi charte yan ko ci tegaloon moom dafa d'accordoon nangu woon ne dinaa wàccoo ak charte yi kon tey bu demee ba ci biir mu wàcc charte yooyee nanu ko xamal na ko moom moo wàcc charte yi waaye itam nanu xamal génération bi ànd ak moom di ay classe noonu lañ koy waxee ci ci ci ci ëtt ba mu nekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ëllëg fas yéene embrasser boobu métier fas yéene sol boobu tëni ñu xamal leen ni kii li mu def du yoon yéen waru leen ko def ndax li mu sol sunu sunu moomeel la li mu sol di tenue bi dafa nekk identité boo xamante ne nii du ku jug sol ko ma sàmba du ko sol ma demba du ko sol dafa am ci ay charte yu ñu lay jaarale nga door ko sol waaye itam dafa am looy nangu nga door koo mën a sol tey jamono bii ñu toll ci couvre-feu bu ñu ñëpp lëloo seeni biir kër kenn amul fit kenn amul sañ-sañu génn ñoom saa boo taxawee ci sa buntu kër seen leen ñuy dem ak dikk di dem fu leen neex c'est parce que tëni baa leen ko may tëni boo leen ko may nag ñu mën a def loolee tëni boobee moo leen tënk ci waroo leen a def lii nga xam ni moom la Pape Bouba def tey ba tax ñu rajew faw nit ñi ànd ci loolu fow ñuy nangu loolu d'abord balaa que ñuy indi leneen wala ñuy indi leneen beneen bi ci des dañu nekk ci dëkk boo xamante ne boo waxee ñu ne dafa soxor boo waxee ñu ne dafa boo waxee ñu ne sax kii du taalibe moo tax mu wax ko te amaana ñi koy wax sax yaa leen gën a nekkuk taalibe tey ñi nga xamante ne nii tëb nañu di tëlli tëlli ñëpp di yëkkati ay million yu bari di jox Pape Bouba ngir lan ngir aw tur ngir lan ngir ñu ràññee leen ni ñoom defoon nañu ci lii bis bu yàlla sàkk ñu dugg ci internet bi gis ñoo xamante ni nii ñi ngi ci sukkuraat ñi ngi toll ci dans le soxla ko fuuf kenn joxu leen gis fi ñoo xamante ne nii tey si tey ñi ngi génn am problème ngir fay ñuy liggéeyandool ñoo ñee tey ñooy profité ci occasion wu Pape Bouba bi di génne ay millions di teg ci kaw taabalu bi di maye gis ngeen fi budul benn budul budul ñaar ci chaîne YouTube bi ñuy wax seen buzz bis bu yàlla sàkk ñu dugal benn mbindaafun ci mbindaafun yi nekk fii ci biir réewum senegal di soxla ndimbal feebar ay mil képp mën koo faj mu tëtëj tey ñu ni def raja radiation am na ci benn mbokkum taalibe boo xam ni takk der la woon mu jaawale ak takk deram ak doomu aadama bi mu doon dem sukki ci kanamu sëriñ bi ñu dàq ko moom lañu ñu juugal ay million jalal ko ko jox ko ko faw ko ñu tam nag ñu xam nag ñun ay lan lan ñun faw ñu gëstuwaat nag suñu bopp ñun d'abord ba xam ñun ay lan lañ bu dee ni dañuy woote ni ay dëgg dëgg taalibe lañu bu dee ni dañuy woote ni ay dëgg dëgg murit saadix lañu ñu mën a tànqamlu nit ko toll ci sukkuraat ñu mën a toog di tànqamlu nit koo xamante ni nii tey tey tey tey bu ñu ko dimbalewul mën naa faatu ñu toog di tànqamlu nit koo xamante ni nii biir nañu ni mënalul boppam lenn fi mu toll nii ñu toog di ko lu di ko seetaan di défilé di jàll tey ñu ne ñun ak gëm-gëm moom moo tax ba nit ku nu dàq ñu yëkkati suñu millions yenu am ñëw di ko ko xëpp ñun nag jot nañu xool nag ñun ñooy ñan nag jot nañu gëstuwaat suñu bopp ñun laa ni ngir xool ñun ñooy ñan maa ngi tuubaat bu baax a baax tey jéggalu ci kàddu yi lu ci jub ngeen xam ne ndimbal ak kàttanal borom bi la dama doon waxee rek sama xalaatu bopp ah, yéen ki kenn ku ci nekk itam am na sañ-sañu analyser ko li nga xamante ne nii moom itam noonu la ko gisee ah, loolu mooy particularité bu Sénégal 4 TV ah, lu ci dëng itam ñu ngi koy tuub di ko jéggalu ci sunu di la di leen jox rek dig daje ay bis yi di néew ci beneen vidéo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu